cey allahu akbar sàcc ci ay almer sàcc ci margo cey waa jële xew-xew bu doy waar mi ngi nii am ci margo bi nekk ci tuubaa ci penku jumaa ji àllarba 9 février 2022 ay bokk ngi ni jóge ndakaar indi fi koo xam ni dafa wàcc ab liggéey ñu indi ko war koo dugal ci margo bi ndekete am na ñoo xam ni dañuy wër rek ci oto yi nga xam ne ñoo indi néew yi xam nañ ne ñooñu duñ ànd ak seen sago gis nga kii sax ubbi na oto bi waaye tëjut tëjut port bi ngir mu profité ci xool lu nekk ci seen bagage yi mu sàcc ko ab sàcc gi nii bii wax nañ ni mooy ñaareel yoon mu koy def ci margo bi te am na caméra de surveillance te ko xool leen waa ji mi ngi noonu di ñëw boo gisee ku yiw la nga jàpp ni lu baax la wala ci ñi indi néew bi ci la bokk opéré na oto bi gis na mi ngi xool ba xam am na ñu fi nekk wala déet ndax fi ne mi ngi jàkkaarlook oto bi nii ngay seen li nga xool na ci biir gannaaw bu mu xoolee nag gis na dara léegi xa xamagul lu mu doon mais mi ngi vérifié ba xam am na ñu fi nekk am déet xool ko bu baax wër na oto bi góos ak duraat xool biir margo bi gisul kenn mu dëppaat léegi nag war a mën a xool ci biir oto bi ba xam dëgg-dëgg lan moo fi nekk. gis nga fii muy yéene nag fi la gisee saag boo xam ni am na carte d'identité am na passeport waaye am na téeméeri junni bi ñu ko gisee nag dafa tiit dafa këf saag bi xool ko tuuti këf na saag bi day daal daw xool ko xool ko ay xel lay daw génn foofu. yow mi seetaan te xam dara ca xar kanamu sàcc bii nga xam ne yóbbu na téeméeri junni jàmbur wooteel ci numéro téléphone bii ci baar bi ñu def ay pexe ba jàpp ko danañu ko jébbal. brigade de recherche ngir ñi nga ñoom ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll sàcc bi nag bu bëggee mucc na woote delloo xaalis bi ñu jéggal ko amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn ju kenn jublu pour